bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tey mooy guddig ñeenteel gi ci weeru koor wi naafila tey gi ñeent rakkaa lay doon bu ci ne faatiha benn yoon kaafiruuna ñetti yoon ñeenti rakka bu ci ne benn yoon xul yaayal kaafiruuna ñetti